waaw man 2003 ñun ñoo fii gars yi 100 lañ ko xamee mais ñun peese lañ koy wax maanaam 100 mooy peese. waaw jóge fa toog 2 mois dem campenal campenal laa dëxëñi lépp di am na jàq di nga jàng alxuraan boo bëggee. loo bëgg def duñ ko def boo xëyee di nga entraîner man nag chaque jour entraîner laa fa nekkoon matin et soir matin et soir entraîner matin et soir ñeneen ñu nii bu ñu toog paree dem salle de télé seetaani télé li lay wan ne gars yi kaso bu yàgg sax baaxul dañuy gis sax ci télé seetaan gis jigéen weenam nii rek ku nekk di yuuxu salle de télé loolu lay wan ne kaso baaxul moo tax ñu bari war nañ ko jomm war nañ ko moytu boo fa yàggee yenn yi sili bu jigéen da ngay gis ku ko yónneelu pour denc ko wër gelam di ko ginzin yooyu yëpp moo lay wan ne am na lu ne nag ci biir kaso bi mais loolu à suivre la